Euh, Simone euh, Biles mhm. euh, athlète la boo xam ne américaine la mhm. nit ku ñuul la voilà mu ngi nii vingt deux ans la amoon ñaar fukk ak ñaar bu mu amee loo xam ne kenn mus ko am ci gymnastique mhm. c'est-à-dire que am na raay juróom ñaar fukk ak juróom raay Mm-hmm. te ki ki ñi kon am juróom ñaari fukk ak euh, ñetti raay mooy Vitali Cherbo benn Bélarus la. Mm-hmm. waaye moom lu mu def kenn mus ko def. lan la def non cest euh, gymnastique la def. Mm-hmm. day def ay figure acrobatique di tëb. Ah. boo xoolee nii dafa mel ni kuy naaw. non seulement dafay dafay jóg di naaw. mais buy wàcc. Euh, elle retombe place bu mu war a taxaw foofu lay taxaw. macha allah ci équilibre ci rafetaay euh, vraiment euh, ku ku extraordinaire la voilà boo boo gisee nii donc vraiment nekk na koo xam ne léegi légende la. Mhm. am na ñoo xam ne sax dañuy ànd ak moom ñi ñiy def sport bi ak moom ku mel ni Heard eh, xaritam la bu fa nekkulee moom dane kii du nit. <laughs> ndeysaan tellement que euh, mokkal na lu mu lu mu lu muy def. lu muy def te fexee na ba presque am na figure yoo xam ne comme souvent coach mu ngi koy wonee fii. ne eh, mouvement yi coach nangam moo ko moo ko def et cetera moom tam ci espérom dafa daan defar ay figure figure yoo xam ne dañuy dañ eh, dañ koy tuddee moom ñu ne euh, voilà Simone Biles benn Simone Biles ñaar et cetera. moom daal cër bi amoon ba dugg ci dictionnaire bi naan le verbe zaltaner. Euh, moom am na exactement ñeent am na ñeenti figure yoo xam ne moo xam ci tapis la. Mhm. moo xam ci baar la moo xam ci euh, fépp ci ci sol la am na loolu donc koo xam ne la vraiment ku am ku impressionnant la c'est-à-dire kenn mënul comprendre naka lay def pour def yenn yi. Mhm. te lu tax ma tàndu ko tey pour ñu waxtaan ci. Euh, benn la cest di que boo xoolee dundam moom euh, euh, Simone Biles. li mhm. nga gis ne bu mu do bu mu juddee amul woon baay. Mhm. Ah. papaam nekkul woon kër ga. te yaayam mandikat la woon. dañuy am jom te boole ci yaayam boole ci di di tux bon. donc de sorte toujours dañ ko daan jàpp. Mhm. di ko yóbbu kaso. bu mu nekkee xale bu ndaw. ñu jël ko euh, moom ak sëram mm-hmm. ñu seen maam ñoo leen jël ay magam yu góor eh, ñu placé leen feneen beneen famille d'accueil donc nekkul loolu ku am dund bu bu yomb mm-hmm. euh, rax ci dolli bu mu nekkee xale bu ndaw dañ ko siif oh. mu dem ba waaj a nekk jànq ki ko doon médecin bi nekkoon ci seen staff bi mm-hmm. moom ci boppam di ko siif ndeysaan donc dafay am ay situation yoo xam ne moom dafay waaj a dem ay ay compétition ñu ne ko sa sa mag bu góor dañ ko jàpp parce que daa rey nit. ci yàlla. dund na loolu yëpp wala am na benn championnat boo xam ne daf ko war a daf ko doon waaj à la veille ñu yóbbu ko hôpital parce que dafa amoon problème ndiggi mais bu mu ñëwee foofu kenn xamul ne amoon na problème la veille. ci yàlla donc ça veut dire que. doomu aadama du ñi bari dañuy wax ne damaa nekk ci ay situation yu métti ay jafe-jafe yu métti moo tax mënuma def lii eh, sama baay amul sama yaay amul bu mhm. looloo tax mënuma def lii wala kenn dimbalu ma cest à que nit ki boo amee loo bugg ba pare mm. nga nangu ci sonn mm. taggat sa bopp nekk ci góor góorul lépp loo bugg di ko mun a am te yàlla dala ci fekk si sax waaw du yàlla du yàlla yàlla soxorul loolu toujours loolu lay wax mhm. yàlla soxorul cest à bu gisee ni yow ci sa bopp dangaa sincère ci li nga nekk daf lay yërëm may la li nga li nga soxla. dëgg la jarul sax ngay nekk fii di ñaan. Mhm. parce que man souvent damay wax ne doomu aadama warul nekk fii sax toujours di ñaan yàlla lu ñu war a def mooy gërëm yàlla sant yàlla alhamdulilah lañu war parce que yàlla dafa ñu may lépp loo xam ne war nañu mun a briller nekk ay nit yu exceptionnel mhm. c'est-à-dire doomu aadama bu juddu te def lu extraordinaire loo xam ne jaaxal na ñëpp. pour man dafa xaw raté. sa euh, vie li woykat ba nee na moom il est venu dans l'inconnu waaye il repartira inoublié maanaam dina des ci légende ak histoire dañ xam ne moom juddoon na jaaroon na fi ku ci nekk mhm. fi nga toll ak li nekk sa at ak loolu loolu moo war a nekk sa ité tout naa def sama dund loo xam ne kenn mus ko def mhm. ñu yéene nag mu nekk lu rafet mais li nga xam ne bëgg nañu ko def pour ñu marquer suñu passage parce que yàlla dafa ñu may lépp suñu yuur ñu ngi am ordinateur yu gën a mag mag a mag ci àdduna mais mënuñu sax def eh, as tuuti loo xam ne yuur bi mun na ko def. tout à fait. donc ça veut dire que am nañu lépp pour mun a euh, jëfandikoo bu ñu ko jëfandikoo rek lu ñu am rek lu ñu yàlla may bu ñu ko jëfandikoo lu ne mun nañu ko def. kon volonté rek moo fi nekk. volonté rek jàpp volonté rek souvent dañuy dañuy perte suñu temps ci ay ñaxtu. waaw professeur ñu dañoo mën lool dañ koo mën voilà dañu béy dañ dañ toujours dañuy jooytu ah toujours dañuy ñaxtu toujours dañuy xuloo ak ay nit alors que yow boo xoolee euh, Simone Biles saa yu mu defee ay gestam yu yu rafet mais toujours dafay ree te bu ñu xamee ni mais mais Simone Biles un mètre quarante cinq la la la mesuré kon du nekkul koo xam ne am na yenn taay yi mhm. te quarante sept kilos la am su su ah, su bien su sukkandiku woon ci lu mu dund ak fu mu jógee. ak ni mu toll. am na lu bari lu du ko def day nekk fii di ñaxtu di wax ne man naa ci jàpp yàlla di di nekk fii di yelwaan sax wala di topp ay nit. voilà donc soo nekkee soo nekkee ku nekk dafa war a xam ci lan la loo mun ci àdduna. dëgg ñëpp am na lu ñu mun. ku ci nekk am nga loo mun. Mhm. loo mun a def te doo bugg a def. loolu la ñu war a sukkandiku pour mun a defar lu rëy ci biir àdduna et puis professeur pour oui. même compléter ak conforter li nga xamante ni moom moo di sa thèse nous on a mm-hmm. tendance à jël nattu yàlla mm-hmm. man dama euh, doon waxtaan ak sama yaay ji yandee mu bàyyi mu ne mm-hmm. ma nattu yàlla muñ ko duut ne ah métti na ma nangu ko doo ci ñi boole ñaxtu doo dund sax métit gi boo ko jëlee rek delloo ko si yàlla muñ ko mhm. loolu mooy muñ bi maanaam boo warut ànd ak ñaxtu ah yàlla rek moo def lu ko neex mhm. xam nga yàlla kenn mënu koo mere toujours te boo nangulee yàlla noonu mhm. da ngay fexe ba léegi jàll si beneen étape ba mooy ot solution buy euh, li nga xamante ni moom mooy faj li la métti loolu te solution bi ñu bëri comme Simone Biles moom da ko retrouver ci li nga xamante moom moo di passion wala danse moo tax nga gis ñu bëri ku la fi ëpp naqar dàq la reetaan c'est parce que peut-être aussi ci reetaan gi professeur lay jëlaat force bi nga xamante ni moom moo koy moo koy joxaat yaakaar Et les gens, ils ont tendance à oublier ça. Pour un peu, pour un rien, dañuy daanu. ne wooy dee naa ño ñu dootuñu jugati ah surtout sama mbokk entrepreneur yi mhm. da gis dañuy dem affaire yi métti tuuti professeur au lieu ñu ngooñ te xam na ni dara xëyul rek sotti yàlla sax ci maqaama mënoon defar àddina bi ci benn bés te pourtant da cee jël six jours def ko septième jour bi mu noppaleku li nga wax rek mooy bi ma jógee ci histoire Moussa bee passé dëgg la bu nga koy nettali histoire ayo euh, ndax Moussa dem na ba toog ba ni man métamorphologie ni ma meloon ci la ko nettali ci seenant yàlla ayoba mu mhm. dellu si waat xelam muy pour wax sànq rek nit doone mukk mukk mukk mukk jeex na ma ci ma ci yokk rek u nattu yàlla mosoon naa ko wax fii mhm. c'est-à-dire il faut que ñu xam lan mooy nattu yàlla mhm. xam nga euh, yàlla boo ne man euh, asma bu neele tey man damaa bëgg a nekk président Sénégal yàlla day natt ne loolu pour mu nekk président Sénégal il faut que mu yenu lu lu mel ni cent kilos ceeb. waaw ni mu yenn lu mhm. diis. ko c'est-à-dire pour yàlla loolu mooy cent kilos ceeb. la war a mais comme eh, wóoru ko ne kii nii am na volonté boo xam ne. Mhm. am na doole boo xam ne mën na attan cent kilo boobu. tout à yàlla dafay commencer di ko jënloo ay vingt kilos. Mhm. boo jëlee exemple Simone Biles. mooy lu mu juddu amul baay baayam dem. yaayam nekk euh, mandikat ku bon ba ñu jël ko yóbbu ko ci ay maamam yooyu yëpp ay nattu la donc su su su ne woon léegi bàyyi na kon yàlla dafay wax ne rek su ma ko joxoon lu mu bëggoon lu mu bëggoon aussi mun ko attan du ko attan du baax ci moom da koy bokk na ci yërmande yàlla donc ça veut dire que su fekkee bëgg nga dara mhm. il faut nga nangu ne métit yooyu mhm. du punition du punition déedéet yàlla dafa lay non yëf la dafa lay préparer mhm. dafa lay dafa lay dafa lay préparer tàggat voilà pour que bés boo nekkee foofu Eh, nga nga nga mun ko yore mhm. gis nga am na situation yu bëri am na ñoo xam ne dañ jëkk-jëkk rek am lu rëy du leen jig du leen jig mos parce que préparé seen bopp loo dajul ba am ko waaw <laughs> donc ça veut dire que moo tax léeg-léeg da ngay gis ku nekk ku war a nekk président mu jaar mu am jaar-jaar yu métti ku mel ni Nelson Mandela mhm. nekkoon vingt sept ans ci kaso président Abdoulaye Wade bëri mhm. na exemple yoo xam ne am na jaar-jaar bu ñu bu ñu bugg bu ñu bu ñu toppoon Euh, baneexu àdduna wala topp waxu nit yi dañuy gaaw bàyyi li ñu nekk mais su fekkee nit ki gëm nga li nga bëgg a def lu mu métti métti da nga ci war a nekk ak xel nag ak xel waaye nag da nga ci war a nekk bañ a découragé toujours bañ a nekk fii di Eh, di di di di di maanaam di di wax toujours ne. Eh, di ñaxtu daal dañu war a bàyyi ñaxtu. voilà dañu war bàyyi ñaxtu. <laughs> jubal ci li ñu war a def parce que mission la ñu nekk. Mhm. nekkee te mission boobu il faut que ñu gaaw ko def. bala ñu fi jógee parce que kenn xamul kañ ngay jógee. ci àdduna waaw tout à fait la perfection dans l'imperfection. tout à fait parce que si tout était euh, parfait. Mhm. Euh, nit ki du jéem. déedéet du jéem nit ki du jéem wala nit ki du xuus. Mhm. Euh, ku ci nekk am nga li nga xamante ne mooy but bi tax que ci te donnes toujours à fond mm-hmm. ngay ñaan yàlla nga ne ko may ma courage pour ma def lii mu indi la ay épreuve pour tester sa courage mm-hmm. Mm-hmm. donc du coup sunu sunu sunu sunu dund yëpp je pense que épreuve yi moo ñuy forger épreuve yi tam mooy tax euh, c'est-à-dire que sport bi bi Simone Biles nekk sax. Mhm. c'est c'est c'est c'est-à-dire que sport moo am xaw ma le sport est incroyable vraiment moo am mhm. barke parce que di nga gis ñoo xamante ne seen mhm. enfance dafa métti ba nga xamante ne fi ñu jaar métti wala seen parents yi métti ñu bañ fi seen parents yi jaar ñoom tam ñu jaar fi ñu ut. mais c'est des gens qui se sont cherchés une passion. moo leen moo leen di forger forger seen personnalité tax na épreuve boo xamante ne bépp bu ñu mën di am passion bi moo leen dimbali pour ñuy dem te xolal plus muy dem plus elle se. Mhm. Euh, elle se bonifie elle se bonifie. et elle réalise des perfections mhm. yoo xamante ne. Euh, performance yoo xamante ne euh, tey jii tu le monde dit que c'est incroyable. ak li mu jot a daj yëpp mhm. donc mentalam vraiment travaillé na ko te mhm. mental mooy nit. Mhm. mental mooy nit mental mooy gis ngeen mooy tax boo toogee ci fenn fi. ni critique yi di critique yi taw de gauche à droite de gauche yaa ngi wax euh, Nelson Mandela li mais nekk président dafa metti yàllaay fal président. balaa nga ci balaa nga ci balaa ngay dem nag ba suñu borom di la fal di nga am jaar jaar. Ah waaw dinañ xool ndax yow mën nga yenn fàddo yi nga ko. dëgër laay yàlla da koy natt parce que yàlla exactement hmm. di nga campagne di xare te lépp àdduna bi yëpp xare la. <laughs> justement àdduna bien ça àdduna yi àdduna bi xare la. Hmm. waaw li wolof Ndiaye wax na ko nee juddu café la borom a koy suukar. ah léegi nag loolu nag tënk na wax ni nañuy nangulal yàlla benn hmm. yàllaa fi am ku ci nekk nag ak sa baay hmm. mooy yonent yi hmm. moom nga topp moo la yar ci yoonub yàlla waaye kenn ku ci nekk yoonub yàlla la kon bu ñu nangulantee ak nangul yàlla dañuy xam ne ni dara ñoro fi bu ñu koy màcc te bu boobaa café gi dañ koy suukar moom sax sax de de neex waay <laughs> may la pënc ah coach Moussa waaw parce que dafa am coono yoo xam ne ci àdduna moom mooy forger nit ki <laughs> da lay mooy li muy wax à chaque fois rek de zéro à héros. Mhm. wax nañ ko barki dem ci jàllu picc. Mhm. bi muy commencé di jaay picc. ñu koy ñuy jaalewaat taawam boobu fi jógee. di jaalewaale baax encore Sofia. Mhm. bi muy commencé di jaay picc am na ñoo xam ne. Euh, dañ defoon ne loolu ay futilité nañ ma baal gëmuñ ko. mais picc yi may ko bu mu am ci ay étage am ci ay kër. Euh, boo xoolee li may wax guy ni muy def. ci giif mooy doomu guy nga saxal ko giif mm-hmm. jur baobab xoolal mm-hmm. baobab ni mu toll mm-hmm. te doom bu ndaw la woon donc am na yenn méttit yoo xam ne nit bu ci jaaree rek wala mu am lu mu teg bëtam gis na yaay mu ngi ci jafe-jafe xamul papaam daf koy forge ba mu ba mu yegg fi mu fi mu fi mu war a yegg lii olof di wax yàlla buy defar dafa mel ni ku yàq da ngay jënd jesner treize mille francs mètre bi waa nga yóbbu ko stéer bi mu dessiné ko par di ko dagg su fekkee amoo xel da ko ne mais yow bul yàq sama yére bi yaa ngi dara ci suuf ma la jox <laughs> mais bu ko daggul su du koy ñëw bu yére bi du rafet dagg boobu nga defe ne du dagg yàqu de mais am noonu doon daggee tissu bi day yàqu mais dagg boobu moom mooy tax ñaw bi baax après ah en tout cas daal lii fi tënkoo tënkoo tënkoo yëpp nañu gën a yokk góor góorgóorlu mm. nangul li nga xamante ni moom la ñu yàlla teg te jël si ab njàmbarte mm, ak góorgóorlu ah te di gërëm tam coach Moussa ak mm-hmm. euh, ñooñam mm-hmm. parce que c'est vrai que exploit bi talent bi am na Mhm. mais il faut derrière toujours ay coach. maa ñi leen gunge. te moom euh, euh, benn benn jigéen bu bu am solo. Mhm. tubaab la sax moo ko doon euh, gunge. te instant bi am na ñaari coach yoo xam ne tam ñu ngi koy gunge. te donc liggéey coach vraiment lu rafet la. en tout cas ma jël ko si juste dara quand on parle de coaching je ne peux pas mënuma bañ a tudd coach Adidas. oui nga xamante ne c'est aussi un manager. <laughs> Euh, te day wax la maturité psychologique à se lier aux autres. moom mm-hmm. nee na euh, la la beauté vraiment la quintessence de du métier surtout du sport sax laay wax. Mm-hmm. c'est vraiment les relations humaines. tout à fait aujourd'hui. Simone Biles elle est importante <laughs> euh, sportive la mais coaching bi supporter bi mhm. entraîneur bi mhm. loolu yëpp c'est un tout boo xamante ne moom mooy formé tey jii ki nga xamante mooy athlète bi mhm. donc c'est hyper c'est important te comme lu mu koy wax nee le savoir technique est tout aussi important que euh, li nga xamante mooy euh, facteur capital humain bi donc du coup exactement donc ma koy jaajëf bu baax parce que tamit le sport c'est vraiment c'est c'est quelque chose le sport c'est c'est la vie. xam nga sport li muy def. ñaw dañ ko dañ ko tënk ñuy tàggat yaram yëngatu nii rek mais sport mooy àdduna. waaw tout à boo jëlee ci wàllu prière yëpp. Mm. muy église ak ci synagogue ak. Mm. ci mosquée mm. lépp. dinaa la indil la prochaine fois ci julli fi ngay kabaree. ba fi ngay toogee di taay sport bi muy développe ci yaramu nit. ok ci prière. pour wàlle ne le sport li muy def un esprit sain dans un corps sain boobu ñuy wax ci endroit sain boobu mais sport li muy rêvé ci ak li muy dalay forger ba à ce nga doon nga xam ki nga doon yow moo tax sport dafa dafa dafa doon lu doyaat da nga koy jël exemple kenn ku ne mu ngi jël exemple sa bopp man ñi may seetaan xam nañ li muy wax bu ma daan wàcc <laughs> plage Koussoum foofu ci mosele Seydou Nourou Tall wala dara dañ daan dem di entraîner nii rek par plaisir par passion personne ne nous paye Mhm. mais même arrivé à la maison des fois tu as un problème pour satisfaire say besoins wala say soxla. Mhm. mais au retour actuellement c'est le sport qui nous fait vivre. tout à fait, en tout, cas mu am solo professeur Danfara la leçon d'humanité du jour est retenue. ndax ku ci nekk jël nga ci sa wàll je pense que jàpp nga ni nangul yàlla la. moom itam mu ne sport am na solo waaye tamit ne ñuy nangu nii dafa war a metti dañ ko war a daj. ngir jot ko moom itam même chose. man itam na ne naa moom àdduna moom café la borom a koy suukar. Eh, <laughs> rek nañ ko suukar rek muy neex. tout à fait Aïcha merci beaucoup professeur Donka xam mu amoon solo lool. merci beaucoup. Aïcha sa blanc tamit baax na de. Hmm. <laughs> moom paix rek. waaw paix rek. jàmm rek waaw. waaw joie. moo tax ñu dend di xool lépp. ñuy pello seen pello paix et joie yooyu ngay pello sa pello mu yonti yàlla Moussa ngeen ba ma ci digg bi nag. <laughs> ni ma waxal Tu la, tu es la synthèse. Je suis la synthèse de la paix, ouais. euh, de la joie, mm -hmm. de, l'histoire mhm. et de la religion. Ouais. Oh, c'est tellement beau. <laughs> Ah, tout cas, merci beaucoup. Chinaka Nono. Dañuy dem jëli suñu page publicitaire. On retrouve le plateau. on va d'autres rubriques.